Euh, ci dogal gi nga xamanteni ni njiitu mi jël na ko euh, fa ki di euh, directeur l'hôpital ba dal di ko wutaleeg kenen di ay mesures conservatoires jamono joju police di wéyal enquête bi enquête bi nga xamanteni ni ubbi ko ci dana am ñeneen ñu mu ci déglu sax ci kanam touti ministère de la santé war ci dajé taskatu xibaari mom itam joxé position wam ci mbir mi ngeen jaaree ci 88 628 14 14 Barthélémy Ngom ci kaddu gi Abdou Cham ci machine yi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. waaw kooku. walla Barthélémy. oui. Barthélémy gën naa laa dégg. maa ngi fi de. Omar Sow la. Omar noo def. sant borom bi mu ak moytu. maa ngi fi de koor gi ma jàpp rek. ay waay xam naa yéen koy suba lay seen ngalax yi defe naa de jeex na de. Mm, waaw moom kay sante ko yàlla. alhamdulilah donc te fekkee nañ ko nañ ko ñaan yàlla kenn gën a fekke waat te kii tal ko. amiin. wax dëgg yàlla lu am fële Louga euh, Barthélemy métti na trop métti na ko à toute cause confondue même les docteurs affaire yi métti na leen. Mhm. dogal yàlla nag bu ñëwee nag euh, kenn mënu si dara. mais wax dëgg yàlla mesure provisoire lu son excellence monsieur le président de la république lu mu def ni wax dëgg ma pour ma uniquement c'est pour pour calmer le jeu. tu mhm. sais wax dëgg yàlla mbir bu amee ndey mbili ci euh, kii moom moom d' abord moo waxoon njëkk a def d'abord vraiment démission le directeur de l'hôpital deuxièmement aussi buñ ko wékki rek directeur de l'hôpital que bi hmm. au hôpital les femmes structure nekk ci biir ay chef de personnel hmm. yooyu tamit eu tamit euh, dañ lay war a déglu affaire bi daal ñu xóotal enquête bi karma la faute à qui nous sanctionne ko fi c'est quand même vraiment amul ben doomu Adam bu am yenn donc hôpital ay médecin wala ay docteur wala infirmier sàggane la ba nga ñàkk foofu sa bakkan mhm. té mom bu ñëwé mon ki ñëw kenn mënu dara mais le wax dëgg yàlla euh, Barthélemy mhm. ñun état ba lañu bokk mais vraiment le service des des hôpitaux à l'intérieur ma li proposé moy nañu dindi télé dans les salles de garde mhm. Barthélemy nañu dindi télé yi gis télé. télé yi salle de garde sans de garde de mhm. eh, télé télévision la wax. Mhm. gis de 22 heures dem kaw 2 heures rejeté bo des hôpitaux yi ay novelas rek ngay fekk gaay di di novelas rek rek télé rek télé rek télé rek wala ñu ay kese la da ngay da ngay sa malade la wax au lieu ñu taxaw la li war la ñu ne mu ngi mu ngi mu ngi ci bi mu sinap bi wala mu loolu moom xam nga Barth lan la xam nga lan la le le directeur des les directeurs des hôpitaux waru ñu man pour ma guddi gi la ñu war a liggéey bëccëg bi saa bay ko ak ñeneen liggéey ko daala ñu surveiller seen personnel bi parce que sénégalais moo sàggane sénégalais mo bëgg toujours ay affaire ñak fayt la la tardel ko la la wax moo si koy sénégalais vraiment maa ngi la gëm ba sat bi ñaan vraiment El Assane gay hmm. euh, yalla défar ko jamm di ko musal seytaan yàlla ñaanal di ak professeur Moussa Baldé yalla musal ko jere jeuf Omar Sow jere jeuf Omar Sow 88 628 14 14 ñu wéy tay dañ lañ ubbil antenne bi ci la xew ci Louga dogal yi ci ci rew mi jël euh, nu ngeen ko gissé ak itam euh, service euh, fonctionnement offre et service yi ci 88 offre de soins yi ci hôpitaux yi 88 628 14 14 alaykoum allo RFM. waaw. Elas Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. oui elage Hadj Alioune Wilane na ngeen def elage Barthélemy ñu ngi ci jàmm. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay siyaar ci seen euh, fête bi ngeen dégmal ni ki dimanche. jërëjëf euh, ñu ngi dellu nangu siyaar di leen ñaanal yàlla ngeen fête ko ci jàmm. amiin ñun ñëpp ñu bokk. Barthélemy. Mhm. man dama bëggoon wax rek lu jëm ci xew-xew bi xew ci Louga. Mhm. man may wax rek ne nañ ci def ndànk ñu ngi wu nag euh, ñi nga xam ne tey ñooy waajuru way jiitu wi. métti mhm. na lool ci xol. waaye inna allaha ma sabrina yàllaa ngi ànd ak way muñ yi. Euh, may waxaat aussi état na def ndànk aussi. Hmm. ci sanctionnement yi aussi. parce que nag lépp euh, yaakaar naa ne am na bu ñëpp yemoon dana am ñu gedd seen i cër. Hmm. te yaakaar naa corps métier boobu muy wàllu euh, docteur yi. Hmm. wax dëgg yàlla ñaari at yi ñu wan gannaaw. wax dëgg yàlla nag Barthélemy souffrir nañu. métti woon na lool ci ñoom. nekkoon ci métier mi jafe woon na lool aussi. kon tey ci tey bu kenn bu kenn def benn erreur ñu bëgg a citer ñëpp. Mm-hmm. te Barthélemy booy sàmm nag benn yet ngay yore mm-hmm. booy sàmm doomu aadama doom doomu aadama bu ne ak yetam mm-hmm. kon loolu maa ngi bëgg a wax ne nit ku nekk ak na la yàlla bind ak na ngay doxalee te it nit ki tamit li ngay liggéey ci nga amee incident kon loolu tamit bëgg naa ñu bañ a xarab docteur yi waa kër docteur yi di leen attaqué dëgg la wax dëgg yàlla li yu ci bëree bëri ñu ngi koy jàmba ñu ngi koy dund ak ñoom. d'accord mais doomu aadama la yàlla bind ci matadi. Mhm. jërëjëf kon matadi googu. Mhm. il faut tamit ñu leen koy muñal. Mhm. tamit ñu gën leen a ñaax. waaye maa ngi wax état na xoolaat setantal bu baax balaa mu teg daan koo xam ne tegoo daan. d'accord ndax tamit hôpital ba bépp mënuñoo ànd négligé du ñàkk ñoo xam ne ñu ngi def liggéey bu mucc ayib kon liggéey boobu tey dañu leen war a jaaraamal ndax nag ñun ñi leen xas tey tey man mii wilaan di leen xas tey bu ma leen xasoon ba pare tey yàlla teg ci man ni yàlla tere malis man ñoom ci ñoom laa yaakaar pour jëm waaye léegi nag bu ñu yeggee ne Wilane Biré moo nekkoon ci rajo di nga xarab waaye waaye bu leen yàlla defee xolu doomu aadama mbaa kay ni yàlla tere kon foofu tamit bu laay wax nit ñi ne leen ngi delloo si xel yi wàññi xarab bi te xam ne ñaari at yi ci gannaaw ah wax dëgg yàlla booba nekkoon nekkoon nekkoon docteur jafe woon na lool ci àdduna bi. wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Wilane jërëjëf Wilane 88 628 14 14 88 628 14 14 fi ngeen di jaaree ba yegg si ci antenne bi 88 628 14 15 salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. El Hadj Xaas Mbaye Mbacke Bool. El Hadj na ngeen def. ñoo ngi yàlla bu wér wér wér. jërëjëf jërëjëf Mbaye. ñoo ngi di jaar leen ndokkeel. ñu ngi delloo si yaar bu baax. Ah, di leen ñaanal borom uh, yàlla defal leen jàmm. amiin ñun ñëpp ñu bokk. di am mbégte baax na ci taxawaay bi. Hmm. ndaxte wax dëgg am li naan jaboot jàmm rek kay mbokkam. Hmm. waaye yéen moom ku ne xam na ne moom moom taxawu ngeen ñu wax dëgg yàlla taxawu bu gën a gën a rafet. Hmm. di siyaaree nag uh, sunu maire bi Abdoulaye Ka fii ci ah, xam nga tey am na ku naan RFM matin mais wax na wax bu am solo xam nga ba tey solo ci àdduna. Hmm. mooy jukko yi lañu war a xoolaat jubbanti toogaay yi. ki hmm. nga ba tey liggéey liggéey la foofu la. Hmm. te ñun sénégalais ak sénégalais bi dañuy def lu ñu tëgg boole ci përëm xam nga fi ne boo gisee mën ne boo solee mbubum daayira wala nga nekk journaliste wala nga nekk wala nga nekk leneen lu mu mën a doon soo defee benn faute bu ndaw ñëpp lañ ci raaxaat xam nga hôpitaux yi.

waaw moom moom waaw moom moom dafa war a am ci parce que loolu mooy tax yow li ngay liggéey nga mën a xam ne yow sa liggéey yaa ngi koy def ni mu waree. Hmm. parce que bu heure bu nit xëyee hôpital bi suñu wàccee moom war naa am rapport yi xam ñaata malade dafa dugg xam maladie grave yi xam maladie grave yi xam loolu day tax na yow li la jox yaa ngi koy def ni mu waree. Hmm. waaye su fekkee laa jox benn privilège bi muy muy muy docteur nag muy chauffeur muy ak ku mën a doon lépp looy liggéey nekk responsabilité war nga koy di saytu si bàyyi sa xel. Mm-hmm. mais du caaga ni que bu yooyu jotee rek nga dem wax maanaam daal maanaam daal jaar na yoon tey jaar yoon ëllëg bu tax bu mu tax nga yaakaar ne noonu lay demee saa su ne waaw waaw da war nag yow di di fàttaliku mm-hmm. fi ne dem na ba ci xool fi ne mbàkk mi ji ma dëkk nii mm-hmm. fi ne xale yi nga xam ne ñoo yéete xëdd mais fi ne loolu li ñu koy defee dama yàlla jégal même buñ ci jubloo yéen nit ñi sax dañ cee bool def te da ngay dégg ñuy def ay kubéer tëgg bàyyi leen seen jabar yi jublu xam ay wax yoo xam ne dafa vulgaire daal xam nañ ñun li ñuy def nañ defaraat di koy xam ne ay doomu aadama la mais réew bi dafa neex lu neex waaye parce que na si na yàlla jéggal nag ñiy def politique daanaka ñoo ko def parce que dangay jël nit koo xam ne xamul dara bu ko dugal ko ci hôpital mu nekk fa ñaari fan ñeenti fan ay gàddu comme ñu wax ni télé yi mais télé yi internet da gën a garaaw xale boo dem ci hôpital yi dama yàlla jéggal ay sinam nga fay fekk ay ay dafa waar dafay waaru daal mhm. jikko yi daal moo yàqu complètement dañ defaraat seen jikko yi xam ne liggéey bu bokkul ak caaxaan mhm. yàlla dana na nga liggéey ba pare soog maa jaamu liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla tey nit ñi di di respecté doomu aadama yi tey wax dëgg saka mhm. ba ci dem li la nii ba ci rek bi bi bi ci léegi nii euh, Omar Sow la xaw ma dañ yow yaa fa nekkoon dañ ne ci euh, euh, machine ba ñëw na am na waa liggéey na ko machine ba ñëwul ñu ne ministre mu loolu lay def du wax dëgg ay léegi mu waa machine bi ñëw na loolu lépp ci jikko ñaaw rek d'accord bala ngay wax da xam li ngay wax mooy xam li jërëjëf jërëjëf alaaji xaas ñuy gàttal su ko defee ñeneen mën a yegg si alaaji xaas mbay ñu koy gërëm 88 628 14 14 Abdou Thiam am na keneen salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah aha kooku Barthélémy waaw son bu géele nu ngi lay woy Touba son bi na ngeen def tamit sëñ Tuubaa baax ñuy ñaanal ñëpp. jàmm jërë jërëjëf naka waa Touba yëpp. ñu ngi sant bu baax. jërëjëf jërëjëf. di waxtaan bu baax a baax. Mm-hmm. di xam ne rek docteur yi leen di jaajëfal bu baax ci seen liggéey. Mm-hmm. ndax soxla bu fekkee daa bari ci doomu aadama. Mm-hmm. daa wér waaye ku wér di benn soxla rek ngay muy wér. kon ñi ciy liggéey dañ leen di ñaanal suñu borom dafa leen jàmm ak waaye nag nañ bàyyi xel bu baax ñoom seen biir. ndax rawatina ki nga xam ne dafa tawat ñëw ci ñoom rawatina ki nga xam ne dafa toll ci maanaam koo xam ne jigéen wér mhm. kooku moom dafa aajo taxaw bu baax a baax kon li may ñaan mooy directeur yi mhm. ak chef de service yi ak chef de département yi nekk ci hôpital yi mhm. nañuy saytu seen bu baax baax ba xam ni ñu war a ne wala nekkuñ li ñu war a ne ndax hôpital moom boo fa nee yaakaar naa faj rek moo la fa raw jóg so mu amalaat nii da a bàyyi la ngay def lépp taxaw leen ñi nga xam ne ñooy def leen war nag moom kenn waxu leen dara ñu leen jaajëf bu baax boo gisee ñuy wax kay mooy ñi nga xam ne lañ war a def dañuñu ko wala presque daa manqué. Mhm. kon loolu nañ ci bàyyi xel baax muy état bi muy personnel bi muy ñi nga xam ñooy dem ci hôpital di fa yóbbu ay malade ñoom tamit nañ ànd ak dal te xam ne ñoo ngi fay fekk ay nit lañu comme nit ñi rek. Mhm. mën nañoo jum mën nañoo def na ko si noonu waaye lu mën a xew daal kenn ku ne boo defee da nga war a dem. Mhm. jàmm ne waaye lu mën a li li ëpp daal mooy am pàcc moom ku cay liggéey am na noo am na comportement boo xam moo nga war a comporté boo ko kii liggéey ci ay weñ te suñu borom moo ko teral. d'accord te ki ab docteur am ñaari am fay hmm. euh, euh, hmm. kon loolu daal lu am solo la ñu ngi leen di bu baax jërëjëf jërëjëf 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou am na keneen ñu jëlaat ko ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. Ousseynou Fall Kolda. Ousseynou Fall Kolda na ngeen def. sant yàlla bu naka waa Kolda yëpp. ñu bu baax. mbaa tàngul. Mm, non moom tàng na lool moom. tàng na lool de. xam naa moom ah yéen kay moom xam naa ne zone boobu diggante Kolda jàpp Sédhiou ki yooyu ba ci Jurbel bii sax dañ leen di masawu ci tàngoor bi. waay waay waay vraiment. région yi moom tàng na jër fan yi actuellement ma région Kolda ma xam naa moom. ah, ah soo ñëwee ba sant Dieng moom soo ñëwee fii da ngay daw. <laughs> yàlla baax na. yàlla baax na. acca ñu ngi lay déglu Seynou. mais dafa mel ni. RFM depuis Dembou, région Kolda dafa am problème. Ah ah. Radio bi dafa mel ni dafa am problème depuis Dembou, démb ñu ko dégg bu baax. ah bon bàyyil après dinañ ci jokkoo ak Abdoulaye Diallo. Inshallah. allah mi ñu fa toogal waaw. vraiment gannaaw ñu sant Yalla julli seen sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari Hmm. vraiment di ñu am nakal bu baax lu xew. Mhm. mais nak vraiment nañu xam dogal Yalla la man li ma waroon lancer ci président de la république. Hmm. vraiment parfois tamit dafa war a baale. parce que kenn jëlul intensité vraiment. di rey nit. Mhm. waaye donte bakkan bakkan dafa foor nag. bakkan dafa foor. sax nit ku nit ku toll tollu diggante dem bay matu. vraiment. Mhm. yaakaar naa moom kenn jëlu intensité vraiment di rey nit. surtout nag ci wàllu santé si wàllu santé dafa compliqué bu dafa compliqué dafa xaw a doy waar. Mhm. vraiment moo moo jiite lépp. mais parfois tamit vraiment maa ngi koy ñaan nag parfois vraiment dafa war a baale. parce que soo defee erreur rek vraiment ñu ñu ñu ñu. vraiment so def heure ñu ñu commencé la door di marto hmm. bon ensuite bon so demee boyaa gën a dafa xaw a doy waar hmm. parce que yàlla si boppam day baale vraiment ne baale d'accord asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf euh, Ousseynou Fall 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah Barthélémy waaw Médor waaw maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di nuyu équipe Futurs Médias ñëpp. jërëjëf. waaw wax rek ne xam nga ngir suñu borom moom dogal yàlla kenn mënu ci dara. Hmm. waaye da ngeen waxtaanee loo nga xam ne xam nga hôpital yi ñoom euh, ña nekk seen liggéey moo leen fa indi moom la war a def ñi nga xam ne malade yi nga xam day ñëw pour faju si ñu di indi ñoom tamit war nañu wax ak ñoom su ko defee xam nga boo ñëwee fekk tey hôpital euh, nit ñi bari. Hmm. boobaa yow war nga mën a ànd ak si daal ki indi malade bi kooku du du ànd ak sago day bëgg rek malaatam faju mhm. te bu fekkee ne nag dafa fees da war a da nga war a gaaw ñu orienté la nga mën a dem beneen hôpital mhm. mais bu bu bu fekkee ne nag moom wax dëgg yàlla da ko indi euh, mu am place tegandi gis nga ko euh, ak doo mun am doo doo bëgg lu dul docteur bi daal da ciy nekk même bu dem ak dikk indi ay garab yow sa xel du du dal d'accord nag li mu mën a wax mooy ala kulli àlli yàlla daal ak ndogal ñu gëm ne yàlla suñu mhm. borom ala kulli àlli nit ku nekk sa heure bu jotee rek kenn mënu ci dara. d' jërëjëf kenn mënu ci dara. jërëjëf Médor jërë mais nag mais nag li ma ci li may daaneel rek. waaw ci lu gaaw ci lu gaaw Médor ñeneen dinañ mën a dugg may daanelee mooy mooy wax dëgg yàlla euh, coté ministère de la santé sanction bi nga xamante ni jël loolu jël nañ ko loolu mooy seen seen wareef. Mhm. ñeneen ñi nga xam ne dañ ci jëm dugal mbirum politique nañu ci bàyyi di ci bañ di ci dugal mbirum politique. d' accord président Sall wax dëgg yàlla tabax na ay hôpital yu bari jërëjëf d' accord jërëjëf 88 628 14 14 salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku. Euh, sëñ bi dama la tur bi. acca waaw ba tey ñu ngi lay déglu. Euh, dama ko dugg léegi nii. Mhm. Macky Sall dafa war a baale. Mhm. Euh, gis nga àdduna. Mhm. dafa xaw a waar. maam dañ ni ab sàcc boo ko day yërëm. da laa sàccut. ndax. ëpp daal liñ ci liñ euh, liñ ci nekkee. Mhm. am na yoo xam ak tayef la. Mhm. munoo tey ñu ñu ñu ñu jox la poste boo nekk nekk xëy tel di seetaan di négliger sa malade. hôpital ab télé tax koo jóg. Ah, en tout cas sax diir bi ñu ne ma nga woon ca hôpital may mattu dafa yàgg diggante 9 heures du matin ba le lendemain à 5 heures. gis nga état li mu war a li mu war a extension yi mu war a jël mooy. Mhm. bépp barab bu fajuwaay. ab télé sax waru fa am. ndax nit ki liggéey mënut a boole ak fo quoi. bu fekkee da ngaa bëgg seetaan télé da ngay toog sa kër nga seetaan télé bu fekkee da ngay liggéey nga xam da ngay liggéey mais am malade depuis neuf heures ba cinq heures du matin nga koy négligé ba mu dee say loxo ñu naan da ngaa war a baale loolu moo war a jeex ci àdduna quoi. Mhm. Sénégal ay baal yi dafay dafay war a jeex. nit ki boo ko dee baal da koy baal ci loo xam ne teyu ko. Mhm. mais lu nit ki tey foofu baale waru fa am. négligence. waaw négligence la quoi. Mhm. li may sant moy li may sant era moy na def liggéeyam ba ma teug buñ ci dakk sax wun ñu ko yam quoi dañ ko wara dakk ba pare tejj leen hmm. mboolem ñom mboolem ño xamni ño def ñaatu yoy ak tayef rek la hmm. tayef rek lu la am lu lu may wax jërëjëf jërëjëf 88 merci 88 et 628 14 14 salaamaaleykum salaam wa aha koku Hadji Barthélemy Ngom waaw mam Sini job maa lay woy fi ci diwaanu Diop saw job na ngeen def maa lay ziare. jërëjëf ñu ngi delloo si euh, di kontaan ci Abdou Thiam. noo mhm, nekk si machine bi Ablaye Diop sama xarit sama doomu baay. Ablaye Diop ak Assane. d' accord. di ziare équipe bu RFM ma tey bi yëpp ñoom soor rek yëpp nag di leen ñaan yàlla feer bi ñëw yàlla def ñu feetu jàmm ñu bu ñëw ñu feetu jàmm. Mhm. man may ñëw ñun ñëpp euh, ay mhm. door. parce que fi may jëlee message rek. comme euh, maa ngi yëngu ci wàllu oto chauffeur dina yor oto rey ñeent fukki nit. teewul dina am ay sam su waaye bu ëllëgee dinaa jëlaat permis mu dem liggéey hmm. kon ñun ñu xalaat suñ borom yaakaar naa ñun ñëpp moom mooy rey nit yaakaar naa du rey. Hmm. kon bu ndogal xese ba am Samson baax na waaye Samson boo gis man parce que la xew lu nga xam ñun ñëpp kenn du ko rafetlu. Hmm. waaye dañuy bàyyi xel ñun ñëpp tamit ay doomu aadama la. ndax borom kër bi nga xamante ne rajo nga ko tey. kooku tamit jàppande yoo rey nga ko parce que kenn ku ne da ngay xool tamit ci famille ngay jógee te ñun xam ne ne famille sénégalais kenn day liggéey dund fukk wala dund fukk juróom te bés bu ne dee mi ngi am mais bu dul loolu affaire door moom dee dee am ñu ngi si ak yëpp. Mm-hmm. wax dëgg yàlla parce que métti na ku yor njaboot xam ne métti na. Mm-hmm. waaye man wax dëgg yàlla sama akulaay taala damaa bëgg président Macky Sall waaye ñee am soog ba tamit yàlla seet na ne xamuma leen waaye sanction yi nañ ciy xoolaat bu baax. xam nga Barthélémy di nga wax nga wax wax bu am solo léegi nga ni Bakel dafa fort. Mhm. am ci loo xam du juge bi sax dañ ci waxtaan rek am na taxawalkat boo xam ne rey na fukki gën a ak ñeent yoo xam ni ñoom ay am na ay bakkan te mi ngi def fi taxawal ba nekk maire kon sanction yi na jëkk dalee foofu. d'accord. maa ngi di sant di leen jërëjëf jërëjëf euh, Diop euh, ñu faxe euh, ñu bañ également di laawaal leneen lañ ñem ci sujet bi li xew hôpital bu Louga ak it mesures yi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ak it offre de service yi sax ci au niveau des hôpitaux ci 88 628 14 14 kooku dem na Abdou Thiam 88 628 14 14 bu amee keneen salaamaaleykum kooku tamit dem na. 88 628 14 14 loolee la ñuy waxtaanee ni ki tey salaamaaleykum allo Abdou Yeksioulde, 88 628 14 14 88 628 14 15 tay ñu jox leen cadeau hôpital euh, Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ak dogal gi nga euh, mi jël na ko ci conseil des ministres tekki ndombol tànk euh, kaa la mesure conservatoire la alaikum. Allô waaw Koko. kii di Amadou Ka mi ngi woo leen waaw Amadou doo yëkkati baat bi tuuti. maa ngi leen di ziar yéen waa groupe Futurs Médias. jërëjëf waaw. waa di ñaawlu li xew sama région bi rek. Mhm. Louga nga Louga dëkk. waaw région boobu laa bokk di. Mhm. wallaahi. di ko ñaawlu rek. Mhm. yoo nañ ci toppatoo malade yi quoi moo gën quoi. d'accord. bañ a topp li Omar Sow wax rek am na ci ñoom tel yi rek la ñuy topp. Mhm. d' accord wallaahi. d' accord merci maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf Amadou 88 628 14 14 salaamaaleykum allo salaamaaleykum. yegsiwul 88 628 14 14 tey la xew hôpital bu Louga la ñuy waxtaanee ak mesures yi nga xamante ni njiit réew mi jël na ko ci.

allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku. xaadimul quran wa xalifatul muslimin. na ngeen def. sant yàlla battali mi na def. naa ngi fi rek maa ngi sant yàlla. waaye ça fait longtemps yow <laughs> xanaa koor gee ma jàppoon rek. <laughs> waaw mane di jaale waa Louga yëpp di jaale président de la république. Mhm. Ah, di masawu nag docteur yi seen bopp ndeysaan di leen masawu. Mhm. di leen bu baax a baax di rafetlu nag lépp lu ñu mës a def ci lu baax. Mhm. lii nag na war a doon leçon bu rëy. Mhm. Euh, président ci boppam li li mu def. Mhm. nit bu defee naka sa du noonu mën nañ ko sanctionné. mais masalan mu doon yar doon yeete doon njàngale. ndax docteur yi man de bu doon sama sago. mbiru sante moom ñu réglé ko te président mën na ko réglé. nu mu koy réglé. na na na na jël budget de santé milliards yëpp def ko ci lu ñuy jëfandikoo rek. Mhm. nit bu demee ca hôpital ba faju dem pharmacie ñu jox ko garab te du génne dërëm ñoom président mën na ko buñ ko bëggee masalan mën nañ ko buñ bëggee régler santé bi yow wallahi mën nañ ko bu ko defee docteur warta garéew mhm. docteur fu muy garéew ci réew mais mais loolu yëfu cuune la mhm. docteur yaa da ngay faj ne yow da ngaa tànn sowe nit ñi ñi ngi nekk ak seen métit ñi nekk ak di bëgg a dee dembati ngóolooli ma ne ku laahut biir mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo doon docteur nit ku bu bu gëmul yàlla pire mën ta doon docteur. mais docteur yi ah. ma ne déet waay. ah kay déedéet il yow da nga da ngay sowe ay bakkan. Mhm. ku nekk ci métti da nga ko ciy dindi. nga ne da ngay garew pour dërëm ba urgence ñëw ñi ngay saggan saggan ba nit dee ay jullit lañ de dañoo gëm yàlla. lu yàlla dogal kenn mënu ci dara kooku waroon faatu dafa war a faatu mais dañoo yor ay xel dañoo war a jàngat Sénégal yëpp nag foolaal ma ne fu nekk tàmbalee ko ci suñu kilifa diine yi ku ci nekkul nitu yàlla ragalul yàlla politicien sax moo ko gën foo mën a dem ci àdduna bi ci Sénégal wallahi laa wax caaxaan mi nga fa hmm. loolu nag rafetut loolu président na taxaw réglé loolu docteur yi respecté nit ñi hmm. dégg nga de politiciens yi respecté nit ñi policiers yi respecté nit ñi gendarme respecté nit ñi politiciens yi nag dañuy fawee ñoom ñëpp laa wax dañuy fawe gomu ñu ñu bëgg ñu ñu yërëmu ñu li defar Sénégal yomb na. Sénégal jafewut a defar. d'accord lu leer la. mi ngi ni ñun daara yi seetal ni ñu sàggane seetal ni ñuy fawe seetal ñu ñuy ramasser ma ne ko am looy ramasser dama ramasser ag agresseur d'accord jërëjëf topp daara yi daara yi daara yi daara yi daara yi loolu du tooñ. jërëjëf Khadimoul Khourane 88 628 14 14 salaamaaleykum. allo. Allô, salam alaikum. Allô, Barthélémy. Oui. Lamine Baragay, directeur du SNAPS. Ah, ok. Euh, directeur Nangendef. Ça va bien, Barthélémy. Bien, merci, Gay. Wow. maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu radio RFM. Mhm. Sénégal ak ci bitim réew. Mhm. leel jot li tamit nuyoo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci ministère de la santé. Mhm. ci kilifteefu monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr waaw. déglu. Euh, débat bi di ki bàyyi xel bu baax. Mhm. di waxaat rek ne ci turu ministère bi ñu ngi jot liwaat suñu njaal. Mhm. famille soxna si génn àdduna. Mhm. demoon nañu Louga bërki démb jot li njaalu ministère bi ak njaalu état Sénégal yépp ah démb nag ni ñu ko gisee ci conseil des ministres ginnaaw bi ñu ci jógee. ah président république am nay dogal yu ñu ci jël. ministère bi. yàlla dogal na kooku di docteur Guèye juuf ah. Euh, wàcce nañu ko. Mhm. ñu xamal nit ñi rek ne état tamit dafa am nu muy doxee. Mhm. bu fekkee am na ay njuum njuumte yu am lii Sénégalais yi di séntu yaakaar naa ne mooy état jël ay mesures. Mhm. kon ñëpp gis nañu mesures yi ñu jël. kon yaakaar naa ne li ñuy ñaan de ñun ci ministère bi. mooy Sénégalais yi niñ koy defee toujours ñu continuer di am confiance ci ñi nga xam ne ñi ngi faj. nekk ci bérébu docteur yëpp fajukaay yëpp. jàpp naa ne mbir mi buñ ci jógee sénégalais bu nekk sa tooy na ci. parce que ñun ñëpp am nañu waajuru bu jigéen am xam nañ tamit jigéen toll foofu ñu war koo taxawu ba mu rëcc. Hmm. ah kon nag comme am nay manquement état jël na ay mesures. Hmm. jàpp naa ne loolu tubaab naan leçon la pour ñëpp. voilà ñëpp ñi noon ay fajkat te daan góor góorgóorlu. dañ kay moom na servir de leçon rek te mu bañ. bañ bon de mu bañ mu te mu bañ a tefee am sa laay wax. voilà ñëpp ñi nga xam ne kon ñu ngi ci bérébu fajukaay yi daan góorgóorlu naam. Mhm. nañ gën a góorgóorlu. man daal nit ku ñëwee. Euh, toppatoo ba war ca toppatoo. Mhm. pour que ñu wax ne euh, loolu ñu naan ci tubaab jete en pâture maanaam ñi faj ji bu ñu jàpp rek ne ñëpp. kenn mhm. defu ci effort dañuy tumranke dañuy euh, manqué. ñoom kay jàmbaar lañu gaan ak moom ay gàkk gàkk ju ñàkk ci liggéey. te jàpp naa ne jàngoro ji ñu jóge ci fa ci mbas mi. gën na wone ñuy faj ci suñu mbokk yi seen takkuwaay ak seen jàmbaar. Mhm. manquement nag day am. léeg-léeg mhm. et bi mu amee tamit état bi tiire na ci ay leçons. Mhm. kon nañ gën a fóot xol yi ñaanal soxna si génn àdduna yàlla gën koo jégal. ñuy masawaat njabootam. waaye di encouragé waat ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci bërëbu fajukaay yi ñu gën a góorgóorlu gën a toppatoo malade yi. ñuy ñaan tamit malade yi rawatina jigéen ñi wàññi lor. Mm-hmm. ñuy continuer di teel a dem ci barabu fajukaay yi di topp seeni i visite mm-hmm. di ko saytu loolu tamit am na ci solo lool effectivement di teel a dem hôpital bala ñoo xaw a sonn lool bala ñoo loof may visite prénatale yi waaw waaye bu ñu accès hôpital it ñu ñaaxaat docteur yi ñu gën leen a faj gën leen a déglu parce que nit ki bu ñëwee mm-hmm. nga dalal ko déglu ko rek nee nañ daanaka tàmbali nga koo faj kon jàpp naa ne mesures yi état jël ci lii ñëpp danañ ci gën a jàng seen jàngat ministre bi loolu lay wax saa su nekk gis nga déplacement yi muy def pour di saytu te jàpp naa ne tamit képp ku nekk Sénégal gis nga effort yi président Macky Sall def pour ñu tabaxaat ay dispensaire tabaxaat ay hôpital jël ay ambulance yóbbu ko ba ci gox yi gën dispensaire yi gën a sori. Mhm. pour taxawu sénégalais yi. d'accord kon loolu dañu xam ne obligation état la waaye tamit ñu ngi ciy bay nag suñu waar. Mhm. te ak li ñu recruter ci ay médecins ak ay sages-femmes ci ñaari at yi weesu ci ministère de la santé mësuñu ko def daanaka ci Sénégal. waaye nag li am moom metti na ñëpp. te laa Diouf Sarr ak waa ministère bi la gën a metti parce que ñun ñoo jabootee ñoo am responsabilité taxawu sénégalais yëpp. d'accord jërëjëf ñu ñaan ci bàyyiwaat xel. Mhm. dalalaat xol yi ñaanal soxna si événement bi ñu jéem ko dépassé gën a góor góorgóorluwaat loolu la en tout cas loolu mooy kàddu yi nga xam ne lu loolu lañ mën a wax en tant que responsable di liggéey ci ministère de la santé. de ñu ngi lay gërëm directeur ñëpp di ziare ñëpp. ci hmm. ramadan mubarak bi yàlla may ñu lépp lu ñu ci jaamu yàlla may ñu ci lu ko ëpp. amin amin jërëjëf. jërëjëf Barthélemy. jërëjëf euh, directeur Lamine Bara Gaye directeur bu euh, SNEPS da ngeen koy faral di dégg fii euh, ci antenne bi. Abdou Thiam bu ñu waxtu bi dabul ñu jël kenn 88 628 14 14 ñu jël kenn laata ñuy yëkkati waxtaan wi salaamaaleykum salaamaaleykum. 88 628 14 14 88 628 14 14 asalaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw kooku yegsiwul Abdou Thiam de dama yaakaar ne daa am problème ci machine bi tey 88 628 14 14 allo salaamaaleykum. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam kooku. Barthélémy Serigne Mor na ngeen def. ñu ngi lay nuyu di leen di nuyu waa région de Louga bi yëpp di ñaan réew mi yàlla dolli ñu jàmm yàlla te saara jàmm ci àdduna bi. amiin amiin. di jégalu ñëpp nag ci chahru ramadaan bi di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm ji. Mhm. gis nga li xew Louga gii. Mhm. dafa feeñ rek. Mhm. yàlla seede na ne woote naa ci rajo bi animateurs yi def émission yi ñu may dégg wax naa bana traite Barthélémy Dias yow mi jot naa la fii. Louga wax naa jafe-jafe yi dund ba tàyyi chaque jour ma wax ko ci rajo bi mais gars yi dañuy tànqamlu Mhm. Barthélemy Dias tànqam la lañu war a bàyyi. Mhm. Sénégal yi wax naa la fii ba tàyyi région de Louga bi coono bi ñu daj wax naa ko ci rajo yëpp. wax naa ko ci rajo yëpp damaa wax ba ne traite mais Sénégal yi dañuy seetaan li tubaab di wax médecin après la mort mais li xew région de Louga bi moo xew Touba Mbacké gii. Mhm. Touba gii ñun gis nga ubbi nañu sax hôpital bee sax mais ba léegi nii gis nga bañ ko ubbee immigré ko ci lañ jëlaat matériel yëpp ub ko na ko bàyyi yi ci ab ancien hôpital bi fi nekkoon nii fi mu toll nii li fi nekk ci coono kenn ñemewu ko wax sëriñ bi sax yëg na ko ñëpp yëg nañ ko parce que yow région de Louga bi xoolal Barthélemy mbooleem lu ko wër bu bëgg a egg Daara Jolof yëpp foofu lañuy ñuy fajoo see médecin yi ñoo doyul. Hmm. beneen bi gis vendredi bu la fa fekkee samedi dimanche ñoom ñëpp patron yu mag yëpp dañu ñibbi bàyyi fa ay nit duñ fa bàyyi kenn koo xam ni ci médecin yu mag yi la dañu ma xam ne li nekk te yàlla tax. muy Touba Mbacke gii àjjuma ñoom ñëpp wàcc wàcc ñibbi Barthélemy Barthélemy gii mais est-ce loolu jaar na. Hmm. da ñëw hôpital doo fekk benn médecin bu mag doo fa fekk kenn nañ ko leeral fii mu leer nañ président di jël ay mesures ci gaayam yii. Hmm. hôpital day am day am médecin bu mag bu fay nekk boo xam ne day liggéey lundi samedi dimanche. ñuy relevanté mais bu dee dañuy jël ñëpp bàyyi fa ay gars yi seen kii yi nga xam ne dañ fa bàyyi yoo xam ne yow dinaa ne dina fa toog ba ba lënd rek loolu jafe nga na. nii ñu ko waxee nii ndaw si noonu lañ koy defee chaque jour nañ ko wax mu leer man mënoo lu ma dara rajo rek laay dugg du leen ko wax parce que ñoom li ñu bëgg ni dafa yomb faj ni moo baaxul fii ci réseau de Louga. Mhm. commune rural bi caamee ne ngi nii fii sage-femme dara sax amuñu ko baat léegi. lu tollu commune amul dara ambulance bi da nga fay trente mille francs nga door ko woo waaye ba yore ambulance bi yónnee ko ko mu jot ko ba pare door taal oto bu ñëw loolu mooy meilleur ministre la santé suñ jógee ñu baa ngi dox santé baa ngi dox fan la santé bi loolu moo sonal nit ñi nañu dimbalee nit ñi ñu ngi ñaan président de la mu jël ci ay matukaay bu mu ko saral de mhm. bu mu ko saral dana seet yeneen hôpital yi Touba Mbacké ngi nii que la question yi toujours demeure moo ëpp kenn xamul lu leen ne rek que amuñu ay médecin amuñu santé bi moo duxul mhm. jërëjëf euh, Serigne Mor Niang mu nekkoon nag sunu auditeur bu euh, mujj ñu koy gërëm cri kër la na ci nguur gi euh, autorités yi gën a bàyyi xel Euh, service euh, offre de service bi ci hôpitaux yi surtout nak ci biir réew mi région yi mom euh, wax deug neex yalla man min dëkk ci région yi xamna ci lu bari autorité yi war nañ ci gëna baye xel effectivement su li ben aspect bu am solo mom Serigne Mor samedi wala dimanche da ngay dem do fekk ben nit ku expérimenté nonu ci yenn structure de santé yi euh, souvent stagiaire nga fay fek ak euh, ñeneen ñu ko demee te yoyu parfois fay metti pour ñu jël en charge euh, yenn préoccupation maladie donc ba gën baax na ñu bàyyi ci xel mbokk yi jërë ngeen jëf mu nekkoon seen émission penco Barthélémy Ngom la woon ci kaddu gi Abdou cham ci machine bi Yacine Pouy ci digitalisation bi ñu koy gërëm di ko sant ñu leen ni gërëm it di leen sant ci teewlu bi asalaamaaleykum wa rahmatullah